bi nga xamante ne ke def nako dawda jigal encore benen réaction ta ñuy ñew ci cadeau yi nga xamantene ne Ousseynou Ly Pastef yëkëti nako café bi ngeen ma jox sedd na de. Moustapha kii mi ngi def lu ko neex ci plateau bi instant bi. non mënon ngeen tangal café bi bala ngeen ma koy jox. Moustapha. <laughs> dama xam café bi ngeen ma jox moo tàng moo sedd rek wal kafe gimana ngin kotangga bukan ah date men date men ya. kafe gimana ngin kotangga rek ngane ngane bukan lu mbah <laughs> nee na sa réalisateur bi nee na nga tàngalal ko sa bopp ah de wala ngeen jox ma xolu kenn wala dënnu kenn rek ma teg ko ca kafe gi kafe gi kafe gi sedd na lool bugan lu mu wax pardon maa ngi jégalu <laughs> selon Bougane Dani, le premier ministre n'a pas de projet de gouvernance à défendre Lolo la Bougane Ousmane Sonko amul projet bu mu mën défendre. waaw projet de gouvernance projet de gouvernance loolu la wax gannaaw bi mu jógee ci euh, gestion bi. waaw d'accord Ousmane Sonko. Mhm. amul projet de gouvernance mhm. mais Ousmane Sonko du man maa ko war a défendre du dara. mais mhm. nga gis mbaax ne lii am na. mais Ousmane Sonko am na projet boo xam ne. waaw mësul def deal ak Macky Sall. Ousmane Sonko bi mu xamee du jàll andina Basir Diomaye ba mu nek président de la république. Mhm. Ousmane Sonko musul am projet de gouvernance mais Ousmane Sonko tabna ay député ci réew mi di Sénégal. Mhm. Ousmane Sonko tabna ay maire réew ma ca tugal France Mélenchon ci bopam Ousmane Sonko la bëgg mu bok ci ñinga xamné ñokay tab Ousmane Sonko amul projet de gouvernance mais Ousmane Sonko tey am na projet boo xam ne moom ak ñamu àndal. Mhm. dund gi wàññi ne wàññeeku na. licencié nañ ko doon joxe wàññi nañ ñett ñee ngi gis jën jamono gi suuf yi nga xam ne ñoom ñoom lañ doon sàcc Ousmane Sonko moom ak ñamu àndal téye nañ ko ña doon sàcc ñi nga xam ne amaloon nañu réew mi askan wi ay impôts. bañ koo fay Ousmane ko am na projet de gouvernance ngir ñoo ñëwee impôt googee ñu dugal ko fii si réew mi di Sénégal ba étudiants yi tàmbale na ñoo jël jot bourse bor yi nga xam ne amaloon nañ ko yenn si médecins yi tàmbale nañ koo fay enseignants yi si boppam waxi noppi kooku tey am na projet goo xam ne askan wi si trois mois yi ñoo ngi si ji seen bopp mm-hmm. waaye nag waay sàllaaw koo xam ne kat yow sa projet mm-hmm. nga ne da ngaa jiite réew nga nangu ne yow mi danga ñuy sàcc da ngay jël suñu impôt Ousmane Sonko am na projet goo xam ne tabb na nit waaye yow sàllaaw koo xam ne yow amoo projet ngir jàll si li nga xam ne moo di parrainage celui qui n'est pas capable si ñaari ñu dem élection amul benn yoon boo jàll boo boo jàll parrainage en fait Bougane bu ñu si réew mi kuy wax moom warul wax xam nga Bougane si nax ak manipuler nit la dëkk yéen yéen a ngi fàtte fii Bougane bu demee si yenn seen YouTube bi. sur les élections locales. si élection foofu dafa sori. Mhm. dama laaj ci ñoom Moustapha Bougane ngay dem seetaan seetaan laay fam nga dem fekk fa waa waa waa Inde waa dëkk yeneen yi nombre de vues ñoom ñooy commenté di bind. Bougane day caaxaan. jënga réew kenn du ko yoree te ñu ne la jox ñu pare parrainage nga dem jël ji ay ancien carte d'identité jooni jooni andi fii saa nañ la wax ne non nañ nekk si réew quoi nañ sérieux mënuñu ne réew mi ñu ne kat néew ñu ne Ousmane Sonko moo ñëw andi la euh, euh, ñëw yéegal level bi si nombre de vues tey bu ñuy seetaan nit yeeg yooyu nga gis tey ñaata personne ñooy euh, maanaam ñoo koy seetaan yow nga ne léegi xaaral nga ñëw concurrence ak moom nooy concurrence ak moom nga dem benn. bu defee yow émission bi day nangu mu daw si page Facebook am. ñaar si YouTube dañ koy laal. ñëpp xam nañ ne ñu doon seetaan bugaan du du ño léegi ñoo ñoo ko doon seetaan da ngay seetaan bugaan nga gis ay treize mille personnes quatorze mille waaye ñooñu la moo tax pare neen ñu ko yow mosoo jàll parrainage en fait ji nga du ay caaxaan man damaa gëm ne nag des na tuuti réew mi. Hmm. li xale yi naan. kërum nangam ni am na eh, ji nga waaw waaw ji nga ji nga dañ naan liñ naan gurtu xaw ma lu kubéer bi def rek moom la mbir bi di afet hmm. fait kubéer bi li bugg nekk moo hmm. feeñ ba feeñ biir seen TV. dafa am répercussion même di nga di nga doy caaxaan xaw ma xaw ma xaw ma dañ leen war a nëppal xaw ma dañ leen war a dem dañoo war a dem dalal xel wa xaw ma dañoo amee dépression xaw ma yow lii buggaan waxoo buggaan nee na tey opposé maanaam dañ leen war a fusiller dañ leen war a tiimal fetal yow yaay fi vocal saaga yow yaay traité nit yi de fenkat mhm. mais yow tey yaa taxawaat tey ne ñi dañ leen war a fusiller mais yow ñëpp xam nañ ne réew mii di Sénégal la ko foogoon ak la mu ñëw réew kenn du ko yore ci manipulation mhm. dañoo nekk ci réew sàllaaw nag ji nga ji nga fi ñu toll nii bu ñuy wax ci assemblée nationale buggaan warul wax amu fa député bu ñu wax ci maire yi Bougane warul wax amu fi mair amu fi conseil lenn daal lay taafandikoo am naa temps de conseil conseil yooyu ñëpp xam nañ ay Bamba Fall ak ñooñu ñëpp ñoo ko use utiliser bañeeram dem falu ba pare ne nag faloo ñu mais kooku tey bu ñuy wax ci réew mi xam nga lañ ko war a wax bu ko waxee ba wax. Mhm. sa waay na dem fay ji impôt moom moo amul projet ndax boo amul projet de gouvernance sa am na ko mais lan moo tax képp ku nekk seen TV jóge fa. ñaata nit ci ay bop le mënul de grands journalistes on a vu de grands journalistes du biir seen TV. ku mënul gérer sa télé. Mm-hmm. y a de bons yo fay impôt. des mm-hmm. entreprise anti président gérer parrainage parrainage yo des ngay faire face di ko ne waxuma la dañ koo tëj 55 jours. Mm-hmm. muy li projection bis bu ñëwee ba man doonuma mhm. a andi indi keneen. nañ waxante a pas photo ak fal président actuellement ci contexte nekk d'accord dafa am benn euh, moment boo xamante ne foofu la mu am un nouveau régime euh, qui est en place selon yow opposant nan la war mel jamono jii quels sont les critères yi nga xamante diggante 2024 sur les prochaines années yan critères moo war a accompagner ku ñu mën wax deug né opposant la. xam nga nee la <laughs> dag ma maa bëgg a andiwaat da nga bëgg xam nga <laughs> nee la la fois passée ne fi. Wa, buy opposi bu ñuy oppo opposant di am deug deug xana Guy Marius Sagna nek opposant bi mu nekk continuité li Ousmane Sonko don xex mhm. fii laa la ko waxee. di maanaam li ñoom Ousmane Sonko Bassirou li ñu jaay loo xam ne am na loo xam ne manquement la Guy Marius Sagna woo leen ne leen lii dangeen ko war a def moom mu décidé génn te bu ñëwee continuité lay def te yàlla yàlla yàlla yàlla bu ñu ñi trahir bu ñu te euh, trahiré si fini Mamour si fini jëng bu ñu trahiré si réew mi di Sénégal des na dee na dootuñu amati njiit dootuñu amati njiit ndaxte Mamour xale yi dañoo dañoo sacrifié wu lu bëri ñàkk seeni bakken pour rek benn projet jàll. daj lu ñoo xam ne seen papa seen yaay dañ doon wax dootuñ leen dégg. Mhm. ñoo xam ne dañoo foogoon ne sëriñ yi am nañ si ñoom baat ñu tegee nii sëriñ yi. ñoo xam ne dañoo bàyyi seeni liggéey ñàkk mhm. lépp. Mhm. ngir rek ngir. xooluñu ñoom xooluñu ñoom bu ñu leen fale moom lu ñu leen di tabb. Mhm. mooy nan la ñuy def ba réew mi di Sénégal baax jëm kanam. Mhm. moo tax ma ne la pour oppo euh, opposant am fii dina jafe ndaxte ñii li ñu loo nit yi maanaam ji nga jëng amatul amatul man mënatuma ko gëm si réew mi mënatuma ko gëm si réew mi xale yi dinañ génn porté combat bi ñu porteel passif mënatuma gëm ne Sénégal nit yi dinañ porter combat porter le même combat. mais mënatuma gëm it nag si réew mi di Sénégal dinañ am un chef de gam bu mel ni Macky Sall. ndaxte lu tax loolu yëpp am. Mhm. dafa am kenn koo xam ne maanaam dafa am kenn koo xam ne moo fi nekkoon. am loo xam ne maanaam moom la porté woon mu ne ñu réew mi jàppal ne buum mu jaam laa fi dekket benn waaye dong moo ñëw nekk ko mu jaam boobu dog na bu yàgg te yow doo ñu ko andilaat. mais yow imaginer nga ñii ñëw nii bu ñu te euh, bu ñu li askan yu bëgg 2021 ba tey li xale xeex yëpp bu ñu demaatee ba ñuy instauré loolu ci réew mi boobaa fi nii réew moom di Sénégal njiit dootu fi amati ndax tey loolu mënta weesu li nga xam ne moo di déception boobaa ñii waxuma la au trahison de trahison rek lañ leen di toppee ndaxte tey ñoom Ousmane Sonko dinañ dem saa su di jàkkaarloo ay nit xam ne kii cëram ñàkk na ko si li taxoon mooy ñoom nan la ñu ñëwee au pouvoir ngalawaay kookee nguuru si moo ngi tëdd si matelas bu mu doon tëdd waaye doomu Ousmane Sonko moo ngi gën a am privilège xam na ne waajuram mais kooku tey ñàkk loo xam xam nga lu tax ma ko doon ñàkk. Mm-hmm. ñàkk ko ne ëllëg bu ñuy faloo lan lañ may fal. ñàkk ko woon ne ëllëg bu ñuy la ñuy def suñu waa kër. Mm-hmm. mais li tax xale yooyu doon ko def xam nga mooy lan. Mm-hmm. si réew moo xam ne sa waay di sa teeyaayu ba kenn si réew moo xam ne sa waay di nga romb fu la neex nga xam ne jàmm am na fa si réew moo xam ne troisième personne ñi nga xam ne nii 1000 francs 3000 4000 la ñu am bëgg a paas ay chauffeur taxaw ne leen lii du fi am tey ñoo ñee ñëw jàppale leen mooy askan wi nga xam ne tey bëgg nañu wàññi li nga xam ne moo di dund bi ma ñuy bañ nguur googu ñëw kat ne leen da ngeen di wàññi mburu bi ndax askan woowee dund. Mm-hmm. moo tax tànk ñoo ngi tegu si paa ñu nekk. ñu bëri de rëccuñu liñ leen tabbee ñenn ñi nga xam ne nag dañuy opposé wu ah, sallaaw xam ne duñu opposé wu ndaxte benn mhm. jël nañ alalu askan wi ñaar du niveau ñetti mooy pour ndaw ñi gëmati la pour nga incarné ko mënatul yow mënatul jóge ci ñii xanaa mu jóge ci benn Guy Marius Sagna walla kenn koo xam ne lii Ousmane Sonko doon porté am na ci lenn loo xam ne moom yor na ko ci mais bu nekkulee loolu opposant pour nga gis ko ci réew mi dina jafe. mu nekk ay jàngat yu am solo yi nga xamante ne daaw Daouda Djigal def na.